liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñuy yëkkati moom laal suuf ilaawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi